de Dakar ci li nga xam ne mooy euh, euh, journée du Sénégal journée du Sénégal nag bés la boo xam ne foire bi da ko jageel suñu réew ñu fexe ci bës bi euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs locaux yi ñi nga xam ne ñoom ñooy inventeurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy producteurs yi nekk ci gox ak goxaan yi ñoom ñëpp ñu dajale leen maa ngi félicité ASEPEX madame la directrice général Zahra Iyane Thiam DG CICES ndaxte baax na lu mel ni bu amee boo romb rek gis ku jógee ci benn région wu Sénégal ndaxte day tax ku ne xam ne ci la bokk ci lañ ko boole président Macky Sall dafa wax Sénégal de tous Sénégal pour tous mooy Sénégal bu ñëpp bokk waaye Sénégal tamit buy jëriñ ñëpp loolu gis nañ ko fi. gis nañ tamit ne producteurs sénégalais yi entrepreneurs yi artisans yi jàmbaar lañ ndaxte ñu ngi góorgóorlu moyens bu demeewul noonu it état bi mi ngi teg ay dispositifs moo xam ci financement la moo xam ci garantie la moo xam par exemple ci accompagnement moo xam ci mise à niveau ci formation te wax dëgg yàlla ku gis anam bi ñuy liggéeyee qualité produit yi ñuy def innovation yi ci am nga xam ne li leen état du Sénégal defal am na solo bëri na ñoo xam ne COSEC moo leen fayal seen exposition bëri na ñoo xam ne ASEPEX moo leen fayal seen exposition bëri na ñoo xam ne port autonome de Dakar moo leen jàppale yu demee noonu donc baax na ñu koy fàttali ndaxte boo fi nekkee waroon nga fay ay charge mais am ñu ko jël en charge ngir jàppale la yenn saa ay yi la yenn saa ay département yi donc ñu jaajëfal leen ci loolu mooy taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu am diggante ASEPEX ak CICES ñoom ñëpp di liggéeyal Sénégal état du Sénégal ñoom ñëpp di taxawu liggéeykat yi jaaykat yi entreprise yi bu ko defee ñoom ñëpp ku ci ne li ngay def ñu mën ko mettre en valeur boo buggee exposé bitim réew nga exposé bitim réew boo amee problème mu financement nga am foo koy amee boo amee problème tamit mooy euh, maa nga am foo ko mën a jooyee waaye tamit at mu jot ñu may la fii ci foire bi nga mën a ñëw exposé réew mi yëpp di fi daje ni ñi di jóge bitim réew di ñëw di gis di xam doomu Sénégal lan la ñuy liggéey naka lañ ko mënee fan la ñuy jaar ba liggéey bi di dox. laaj nga ma tamit ci li nga xam ne mooy marché ceeb bi euh, Inde arrêté wul di jaay ceebam Sénégal dafa wàññi ceebam bi muy jaay bitim réew waaye dëkk yi ci mel ni Sénégal nga xam ne yàlla dafa def président Macky Sall am ak ñoom relation yu baax Sénégal am ñoom relation yu baax. defal nañ ñu li ñuy wax dérogation maanaam xaas la boo xam ne privilège la Sénégal am 500000 tonnes tous les 6 mois 500000 tonnes yooyu nag répartir nañ ko suñuy importateur donc loolu nag boo ko seetloo euh, mën na am jafe-jafe ci marché bi ndaxte diggante bi ñu lay autorisé ak bi ngay jot ceeb bi yenn saa yi dina def diir par exemple autorisé nañu mais mën na am bato ceeb yi jóge Inde yi gën a ñëw mars la donc mën na am décalage boobu dina tax yeneen ceeb mooy gën a bëri Sénégal lu mel ni ceeb bu jóge Amérique Brésil ceeb bu jógee Pakistan ceeb bu jógee euh, fi nga xam ne mooy Thaïlande ak ceeb bu jógee Vietnam ñoom nag ñoo ri brisé bële yëpp ay brisé ordinaire lañ ñoo bokk li nga xam ne mooy variété mais njëg yi bokkul ndaxte Inde li muy defar ci ceeb di ko bay dafa bëri ba nga xam ne njëgam moo gën a yomb moo tax ñu taamu ko ñii nag seen ceeb baax na waaye comme bariwul njëg bi day gën a cher état du Sénégal nag mi ngi liggéey ci loolu ngir ceeb bi jàppandi bañ a bañ a ñàkk ndaxte crise bi ni mu amee ci année deux mille vingt deux gis ngeen ko. état du Sénégal day bàyyi droit de douane am ci produit yu bëri day bàyyi taxes yéeg impôts yi ci produit yu bëri mën nañ tënk rek ci wàllu ceeb ak ci wàllu farine bi nga xam ne moom la defaree mburu état du Sénégal daanaka fay na 60 milliards euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine mooy meññee yi ngir njëgu mburu bañ a yokku du dëgg bu ñu toppoon tendance bi nga xam ne moom mooy njégu farine bi fi mu toll tey mburu dina jar juróom benn fukk ak juróom du dëgg mais président Macky Sall fexe ba ñu def subvention bi ba mburu di jar fanweer ak juróom bañ a bouger gis ngeen ne njegu électricité sax bi mu yokkoo boulanger yi nee nañ waxoon nañ ne bëgg nañ mburu yokk mais waxtaan nañoo ñoom wax leen fan la leen état di jàppale ba tax njegu mburu yi warul yokku ceeb bi tamit ci àdduna bi foo dem dëkk yi ñu wër boo demee bugguma leen tudd mais am na ñoo xamante ne téeméer bu ñaa manqué ñaar fukk maanaam juróom-ñeent fukk la kilo bi di jar mais gis ngeen ne Sénégal ba léegi kilo ceeb bi bii jóge Inde eggagul Euh, weesoogul juróom-ñaar fukk mooy trois cent cinquante trois cent cinquante loolu nag li ko waral mooy effort bi état du Sénégal di def ci droit de douane yi ci impôts yi taxes yi ak ci li nga xam ne mooy subvention bi